nga tëj sa bët xam ne yàlla may na sëriñ bi lam ko ñaanoon ci Matlabul Fawzayni mën nañ ci taxaw mën nañ ci taxaw tuuti ndax bi mu koy bind ci mbaarum ngeer képp la nekk waaye dafa wax mag ñi ne leen sëñ Masamba Diop Sam bokk na ci mag ñi mu ko waaw sëñ Masamba Diop Sam ku baax mhm. koo xam ne kenn la ci sëriñ bi bokk ci ñi ko njëkk wàcc ci ab liggéey bokk ci ñi nga xam ne dañoo waxoon sëriñ bi ne ko man damsal laa damsal mooy biteel bu mag mën a denc diw sëriñ bi na ko mayit fas yéene na maa doon lantinoor nga xam ne dara mas a fanaan ci loxoom lu mas am rek jox na ko sëñ Tuubaa waaye sëñ Tuubaa it neewoon na ko àjjana bu doon xottu gerte rek sama borom jox ma ko man ak yow danañ ko bokk ak sa njaboot kon kooku kenn la woon ci yoonu murit moom sëñ Masamba Diop Sam moomu sëriñ bi daf ko waxoon ne ko mu dem Daaru Saam wut fa ay mbuus wulli ko te jëm cee def ab yóbbal ngir ñu ànd ak naarub gànnaar boo xam ne ñu ngi koy xaar mu war a ñu ànd ñoom ñett dem màkk aji waaye bi bi mu ñëwee Daaru Salaam sëriñ bi daf ko yónnee lu woolu ko mu fekk ko Touba gii mu ne ko Massamba Diop mu ne ko Mbacke mu ne ko kama kama bëggoon a fekki kat yebbi na ma am na leneen loo xam ne maa ngi ciy bëgg a tàbbi ab tukki bu sori bu may bëgg tukki waaye nanga xam ne sama mbaarum ngeer mi ma nekk la ngeen di dégg ca ndar ak ndakaaru da ngeen ko ci biir dëkk bi nit dana wut ndar daka nit dana wut dara ndar du ko am mu wut ko ndakaaru du ko am bu ñëw ci sama dëkk ci sama ngeer mi fekk ko kon loolu te lépp lu wax ci mbënd lu faw seen rek lu ñu teg suñ bët la xasida la goo xam ne lu ne na ko ci waaye lépp lu mu ci masa wax rek teg nañ ci suñu bët euh, wa maskan yi salim minal fu jaari wam maa in jaari yow sama borom na nga defal sama dëkk bii muy alak bépp kàccoor moo tax damay faral di wax ne boo yoree nit yéene ko ak faatu te ab wëyu yebal ko mu dëkk Touba ñetti weer rek ko defee génn àdduna wa maskan yi zalim minal fujjaar dëkk bi di leen di leen refourler di leen tarbiya ba ñu tege ci yoon wala ñu faatu rek dee dem sawar waaye nag na nga garanté njaboot gi fi dëkk ak dëkk bi ci ndox moo xam ne day daw parce que 40 forage daanaka mu ngi Touba. mu ngi Touba waaw 40 te bi muy wax loolu booba fi da sa ñablaat nee na da nga daan sebet nit ñi taxawu la ne la may ma ci sebet mi nga ne leen duma leen may lépp ndax dama koy wëgge samay xar booba nee na ku fi gis luy xuuy da ngay jàpp ne da ngaa jommi xoolal tey projecteurs yi nim ñu tiimee. xoolal baas bi xoolal xoolal caméra yi. climatisation beeg ah, xoolal sonorisation bi kon sëñ Tuubaa maanaam mat la faw seen lépp lu ci ñaanoon rek suñ borom defal xewali waaw te it boo xoolee wax na wax na boromam ci mat la faw see ne ko na nga ma defal sama dëkk bi wala tus bi tan na fiihi jamaata tuqiim xam xams da ban yaa hakim na ma defal sama dëkk bi muy dëkk boo xam ne dañ fii saxal julli juróom mm-hmm. jullik mbooloo mm-hmm. asalawaatul xam te nee na loolu na doon indéterminé waaye nag yaa hakiim turu yàlla turu yàlla wi mu utilisé mooy yàlla yow mi xereñ sëñ Bamba corona jaar na fi. waaw corona jumaa yëpp tëj ba mu des Touba. waaw corona jaar yaa hakiim mm-hmm. yow yàlla mi xereñ nga xam ne bu demee ba tëj jumaa yëpp kenn dootu julli wutal ma solution. xawla sëñ Touba gis bi dafa neex. man la mu faw sëy mu naan yow suñu borom bu ñu demee ba kenn dootu julli. wala ñuy tere julli noonu laa ko mën a firee firee wu ko noonu waaye noonu laa ko mën a waxee mhm. wala tusbitan na fiihi jamaata tuqiim mhm. asalawaatal xamsi da ban yaahatim mhm. nañuy julli diirub jamono yow yàlla yow mi xereñ Cheikh Bass euh, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre mi ngi nii di yegg si gis ngeen ko wàcc na ci oto bi nag euh, moom sëriñ bi euh, di porte parole xalif bi nga xam ne moom mooy léppam di ndi jooram wax dëgg yàlla def liggéey bu am solo moom Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre Euh, yore comité d'organisation bi def ci ay commission yu bari commission culture commission communication commission scientifique euh, nga xam ne dañuy xalaat ci màggal gi loo xam ne bu fekkee ne war nañ ko cee mën a dugal ba mu gën a yokk yoon wi kanam ñu daal di koy euh, jox ñi nga xam ne ñu ñoo di borom xam-xam yi nga xam ne mooy intellectuels yi universitaires yi ku ci mel ni ñoom sëriñ docteur Lamine Guèye ak ñeneen ñi ak ñoom Ibrahima Thioub ak économiste yu bari ñoom ñëpp nga xam ne dañuy xalaat ci màggal gi ba mën cee indi ay jéego yu ama am solo moom nag biñ ko denkee liggéey bi ba léegi mi ngi koy matal moom Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre porte-parole du khalife général de euh, Mourides. kon mu ngi noonu euh, Serigne baa ngi nii di dugg si bu dugg see nag euh, kim fi fekk moo di ministre de l'intérieur général Jean Baptiste Tine yegg si na wax dëgg yàlla xam nga ne tey ci suba dafa taw. daanaka taw na fépp ci Sénégal sëriñ bi. wallaay waaye Touba gii tamit taw na fi taw bu bari. xam nga taw waaw. dafa doon xéewal. Mhm. ndax suñ borom nee na barke ci asamaan rek lay bàyyi wala walaw an ahlul qura amanu wa taxaw tax la fataxna alayhim barakatin mina samaay ndax si euh, Amadou Bamba matière première bu yàlla rek lañuy jël man cee def seconde waaye bu tawatul adduna bi day tukki nit ñëpp dañuy faatu xayawaan yi tim dañuy faatu ndax amul lenn loo xam ne tubaab man nañ koo créer nit lekk ko te du ko wàññi dara te jëlut matière première yàlla def ci seconde. dëgg la amul lenn lu ñu mën a créer rek dara yàlla nekku ci nit lekk ko te du faat. loolu moom amul waaw foog mu am moom waaw mu ngoog. kon léegi da ngay mën a jël bele bi def def ci spaghetti wala nga jël daakaande defar ci tàngal. Mm-hmm. wala nga jël cacao def ci chocolat. Mm-hmm. wala nga jël li maanaam euh, lubaan sàkkar defar ci si ngoom mhm. yooyu yëpp ay matière première yàlla la waaye amul lenn luñ mën a te loolu lépp nag mu ngi amee ci taw waaw lay xewali sunu borom yi moo tax Serigne Touba ñaanoon boromam ne ko yow sama borom na ma def mhm. na ma defal sama téere yi mu barkeele na ndoxum taw mhm. waaw na barkeele na ndoxum taw taw dëgg la wàcc xal kitaabiya min sal yow mi faw xasalaatu xubilat wa saw mi maanaam na ko defit mu mu mel ne julli gu ñu nangu. am na solo léegi boo xoolee. boo xoolee même xayawaanaat yi. dañu mën a lekk ci gàncax gi. duuf am yaram. nga mën leen a ren di jëfandikoo leen waaw kon bu tawul rek adduna day tukki kon taw lu rek mën na ko defar wallaay mën na koo defar te li muy defar moo ëpp li muy waaw sëriñ bi ñu wax te tawit xéewal la waaw xéewal euh, koom-koom gi wàllu koom-koom nga xam ne sëriñ bi ndaxte sànq rek euh, keraw euh, sëñ Cheikhouna Mbacké mi ngi koy wax conférencier beneen Cheikhouna Mbacké bi Abdoul Wudud mhm. mi ngi ko doon wax nga xam ne moo di liggéey liggéey philosophie mouridisme liggéey ji jaamu yàlla di def ay di def xam-xam ci taalibe yi ci ndongo yi sëriñ bi euh, boo xoolee dafa mag ñu bari da leen a jabal ñu fa sanc ay dëkk ginnaaw bu ñu sancee dëkk yi mhm. ñu digal leen ñuy bay ku ci mel ni ñu baree bare nga xam ne ña nga dañuy jàngal ndongo yi ba pare di bay liggéey boobu nga xam ne murid yi tey wane nañ euh, njor euh, njariñu liggéey loolu sëñ bi kas kasbul xalaal la ko daan tuddee wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi xayri waxami mag ñi àndoon ak ñoom ñëpp kenn ku ne dafa gor ay daaru maanaam dagg ay tool di bay ndax nit bu liggéeyut du am jom du am ngor du am lu mën a jàpp ba jaamu yàlla moo tax sëñ Tuubaa dafa waxoon ne dama bëgg murid yi ma yaakaar mënal seen bopp te ku mënal sa bopp sañal sa bopp bu ngeen mënalut seen bopp nag boo liggéey dana am keneen ku leen manal te ka leen mënal yàlla na doon mu fekk mu doon ka leen war a mënal ka leen war a sañal ndax ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa waaye sëñ Ahmadou Bamba ci wàllu économie xam nga immigration ci ci wàllu ci wàllu économie immigration yi dañ cee dañ cee suyee rôle bu am am solo taalibi sëñ Tuubaa yi nekk bitim réew ndax xam nga ne bi fi ministre bi ñëwee sëriñ bi ko doon wax naan ko jot na ngir ñu def ay industrie fii ci Touba waaye immigré yooyu ñu nekk bitim réew kenn ku ci ne yow industrie nga ndax kenn ku nekk lu ma téeméeri nit bootu na ci sa ginnaaw dégg nga kon kon kon sëriñ bi li mu bëggoon rek mooy ñu fexe bay dunde sunu ñàq ndax nit balaa mën a def dara yàlla nangu ko day dunde aw ñàqam Seex Ahmadu Bamba am yàlla jox la rek baat bu yomb la am yàlla jox la waaye lu léwul mënu ndax wolof dafay wax ne lu léwul la te biir bu